su président Ousmane Sonko premier ministre doon dem assemblée nationale ci ban mbubb la fay duggee man de assemblée nationale présidente rek laa fa nekkul mais jiite naa fa ay séance ba tey yéen journalistes yi xam ngeen ko soo demee dañ naan ci kaw loi sàngam moo tax ñu woote séance sàngam mais assemblée tey turu premier ministre nekkatu fa parce que ku añaane sa doona sa deeween dafay ñaaw bi ñuy génne premier ministre en 2019 man bu ngeen dégloo sama intervention bis boobu dama ne leen président na nommé ku ko neex na éliminé ku ko neex moom article 44 ak ar 45 moom mooy nommé aux emplois civils et militaires waaye nag ñun assemblée dafa dindi suñu doole assemble amatul woon benn daraja amatul woon droit ci motion de censure amatul woon droit ci motion de euh, confiance amatul woon droit ci dara ñu dindi dundi dindi léppam bi ñu dindee léppam mais assemblée nationale dafa am ay règles foo xam ni règlement intérieur bi di loi organique ñu dindi fa luy premier ministre premier ministre bi ci kaw lan lay demee te nag xanaa tey ko ak jàpp ne xëy na parce que dañ ne léegi ci film bi élection Bassirou Diomaye Soumané la xëy na loola leen katikay ne loo ba xamuñu lu xew mais Mamadou Lamine Diallo mii attiré na seen attention Mamadou Lamine ni leen defaraat leen règlement intérieur bi parce que am na lu ci manqué ñu bañ ne duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko defaraat ah soo ko nag xam na droit am te itam nag parlementaire la woon ñaareel ba. ma yeggal leen ci li ñuy ngawtu ngawtee naan daf ne dafay dem ci euh, benn jury populaire mais su jury normal bi fonctionné wu mu dem ci jury populaire Mamadou Lamine a ngi nii maag moom a dend keroog ba ñuy ba ñu yokk député yi bëggee yokk député yi dama ne leen man d'accorduma ci man leen yéen a ngi nii yéen député yi jiwu leen réew mi lenn lu tax réew mi di nangoo di consentir juróom benn député di leen ko dolli ca mer daal ni bu dee loolu ñu génn ko ci liste nationale ma ne Mamadou Lamine ñii moom li ñu def doy waa de mën ma dinañu obligé ñun opposition bi ñu ànd moom kàddu maanaam liste wàllu yeewi ci moom mii la jóge keroog lañ ko xalaat assemble dafa am histoire kon ñun ragaluñ ci dara bu président Ousmane Sonko nee mu dem ci jury populaire xam nañ ni même ñun ñi nga xam ne ñoo doon xeex parité ci biir assemble nationale lañ ñu andil ñuy def parité bokkul ak li ñu gënal foofu laa ci yem defe naa nag ñu ngi waxtaan ba tey jii am na sunu ay leader yoo xam ne li tax ñëwuñu muy ñoom ay dafe ak ñoom Abbas Fall dañu leen a woo pour ñu defaraat règlement intérieur bi yaakaar naa ne suñ ko defaraatee a ah, premier ministre dina mën a def def tranquillement DPG mais ñun de coalition Diomaye président ànd nañu moom ci li mu wax parce que nag nit day am fulla te ne serait-ce que pour ñu tiire ci enseignement yi ñu ci war a tiire monsieur Ibrahima Diémé waa Kaolack vous avez demandé si la coalition Diomaye et en phase avec la dissolution de l'Assemblée mais bien sûr la coalition Diomaye et allée prêcher des voix à l'intérieur du pays et à obtenu une majorité incontestable nous voudrions que cette majorité se traduise à l'Assemblée nationale Parce que même si Ousmane Sonko, par élégance, devait se présenter à l'Assemblée, mais ce n'est pas une Assemblée légitime. C'est une Assemblée qui n'est pas l'Assemblée du peuple. C'est une Assemblée qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Le peuple a voté et a voté massivement. Dans son vote, il a élu, il a élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye à 54,28%. le peuple peut rééditer cet exploit mieux, compte tenu de tout ce que j'ai dit ici, et que le peuple a constaté avec moi, le peuple peut donner plus. C'est-à-dire, les législatives peuvent enregistrer beaucoup plus, un score beaucoup plus grand. Parce que le peuple, lui, vraiment, que ça peut régresser, ou alors que en considération cette assemblée mooy infantiliser le peuple le peuple sénégalais est devenu très mûr te xam na fa intérêt am nekk. oui oui il faut accélérer euh, Aminata il faut ñu accélérer madame Maïmouna Seck de RSI la reddition des comptes mais non seulement nu sommes pour la reddition des comptes mais c'est dans le projet dans le projet bien avant c'est-à-dire. Ils ont, ils ont montré la voie. Tous les membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine. Les, les, les, le, le, le, le passif, qui est le parti leader aujourd'hui, a montré la voie. Nous avons toujours été pour la réduction des comptes au niveau de la coalition Diomaye Président. Nous sommes pour la, pour la réduction des comptes. C'est lent. Ça veut dire que on a laissé les organes de contrôle faire leur travail sans pression. Aujourd'hui, moi, j'ai l'IGE à la DER. Et c'est un peu pour répondre à l'autre la, à question, une partie de la question qui parle de la DER. Parce que, comme vous le savez, ce n'était pas normal. Il y avait une gestion clanique que j'ai toujours dénoncée. Ce n'était pas normal. un vieux me disait defal ndànk ci recouvrement yi mën na dal ci sa njaboot man ko ma xam ni ko njaboot bu ma war la parce que man financé wu ma financé wuñu ko ànd ak man kon ku jël financement ba recouvrement di la ci fekk nga xam ne nekkoo en phase ak man lu la ci fekk nag àllaaxira mën nañoo bañ a gisante ah alors donc euh, je pense que pour l'appel à candidature l'appel à candidature parlons-en qu'est-ce qui était écrit dans le projet pour certaines fonctions certaines c'était bien marqué mais au là de ça aujourd'hui à l'ADER ce que disent les femmes vous savez quoi ay Mbodj war na am lu ëpp deer donc kooku mooy ñun dañu yegg dañu weesu appel à candidature vous croyez que quelqu'un peut me battre pour occuper la direction de l'ADER donc vous êtes d'accord en c'est-à-dire en contestant le fet que qu'on n'ait pas appliqué l'appel à candidature vous êtes d'accord qu'on a mis depuis le début depuis les depuis les depuis la depuis la la mise en place du gouvernement On a mis, mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, au moins, les, plus, les ennemis les plus radicaux sont d'accord sur le fait que ce gouvernement-là sait choisir, ce gouvernement-là sait faire la part des choses. Et ce qui est plus rassurant, ce qui est plus rassurant, c'est que quand il y a eu l'entrée des militaires, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, mais on sait que ce gouvernement-là est sur le plan de, de, de, de, gérer et de gérer très vite les, les préoccupations des Sénégalais. Et c'est ça qui importe, prendre en charge les préoccupations des populations et arriver à résoudre les problèmes. C'est ça notre problème. Mais je pense qu'il y a pas de problème. Et vous voyez, dans beaucoup de directions, les plus gradés et les meilleurs sont à la tête de ces, de ces directions. Euh, Aïssatou nga wax ci vacances agricole vacance agricoles de dañ koy door a waaye lii di vacances agricoles lii di don de sang lii di mobilisation de citoyenneté set setal loolu moom mooy credo Pastef wax dëgg yàlla ñun ñëpp suñuy parti ngi fi woon mais Pastef moo doon def loolu donc yaakaar naa ne tey suñu nee vacance agricoles fekk na leen ci leneen li ci des moo di te ma mën koo wax lool euh, moo di tey dañu am possibilité surtout avec ce gouvernement là man deer defoon naa war naa fexe ba bu ma defee sama bilan comme ni ma ko waxee bërki démb message bi ma doon wax ma ne leen su ma toogee deer ñu continuer immigration clandestine di am loolu mooy échoué naa te bu kenn ku nekk defee loolu mu sotti or kenn ku nekk dina ko def parce que ministre de la jeunesse dina fanoo loolu ministre de la de la de l'économie solidaire dina fanoo loolu donc ce gouvernement la au-delà du fait que c'est un gouvernement de jeunes mais ñoom ñoo gën a préoccupé wu ci jeunes yi te nag jeunes yi bu leen yaakaar ni dañoo kii rek dañoo xonq waaye duñu xale de jeunes yi xam nañ fu seen intérêt nekk li tax ñu xool fii ñëpp ñaata ñaata ñaata fiche la woon ci ci élection yi vingt vingt kii bàyyi ñoom Mamadou Lamine Diallo bàyyi ñoom ñëpp ñëw ci jeunes yi parce que bëgguñu borom ba xadam mii ñëpp ñëw fal jeunes yi xam nañ ni jeune mooy comprendre jeune te loolu laa leen wax bi ma ñëwee di maire à DER jël Sadio Mané muy jeune ba pare bëgg a nekk entrepreneur ma jox leen ko comme modèle ngeen xam ni comprendre naa leen donc jeunes yi plaindre ñu wuñ moom kay bu ngeen yeboo woon xam ni jeunes yi moom bu neexee yàlla lu leen di taxawu wax dëgg yàlla ñu ngi ci.